allo assalamualaikum Boki, assalamualaikum Askandi, askan eh, bi salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne da ngeen ñu suivre un peu partout à travers le monde salaamaaleykum mbokku diaspora yi ñu ngi fii ci Malick Sy fi nga mi ngi ak juma Saraxule yi boo poste jëm juma Saraxule yi di nga xam ci avenue Malick Sy bi voilà donc dañuy ñëw ci benn kër boo xam ne boo xoolee kër gi gis ngeen ko dafa nekk en état de dégradation très avancé mu nekk nag kër pratiquement presque en ruine la ñu ñi nga ay ci héritier lañ bokk ñu amoon ay problème ñu dekk leen suñu micro ñu xam ñoom ban problème la ñu am euh, salaamaaleykum déjà présenté wu leen ngeen mën a wax maintenant quel est votre problème par rapport ak lii. doomu paa bi El Hadj Amidou Sakho donc euh, kër gi suñu kër papa la ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo mais kër gi tey gis ngeen état bi mu nekk dafa nekk euh, menace de ruine pratiquement menace de ruine la. Donc, ça fait presque trois ans que nous avons ici pour gagner les locataires. Parce que nous avons fait que appartements appartement maire. Nous avons ici, nous avons constaté, après la protection civile, nous avons préfet de Nous avons vu que nous avons la boîte nous avons c'est le Medina. Nous avons une délégation, le préfet a arrêté. En 2018, nous avons vu locataires qui Nous avons fait nous avons nous avons fait des nous donc boo leen xoolee magasin yi même ci biir kër gi am na ay benn ñaari locataires yi fi des léegi par la suite jël huissier ba ñu préfet bi joxee arrêté jël nañ huissier def assignation euh, kii ba ordre d'expulsion sax mais ba léegi locataires yi dañ bañ génn léegi ñun par la suite lañ dem gis maire maire si boppam dafa yóndee fii ça deux ans mi ngi yóndee ay élément te protection civile delluwaat naa fa ñu gëmloo ni monsieur le maire ñoon sele nañ kër gi loolu lañ wax ñoom ñu ne leen no am na ñi fi nekk même boutique yi ñu ngi tijji am na ñu nekk ci biir kër gi tey même ba ngeen duggee gis ngeen ay quelques locataires ngi fii euh, que ce soit niveau rez-de-chaussée ah, si appartement yi donc bëgguñu risque di am loolu la ñuy ñaan autorités yi ñu ngi leen di interpeller di ñaan monsieur le maire monsieur le préfet ñu jàppale ñu si lool parce que gis nañ ni xew récemment Médina dafa am ay kër yu fi daanu am ay drame ñun loolu moo tax bugguñu ñun suñ bopp tey dañu génn di fay location te suñu kër papa fii lañ juddoo donc loolu moo tax ñuy ñaan monsieur le mu jàppale ñu si loolu parce que bëgguñu muy ñaaw voilà donc euh, c'est ça. man lu ma ciy dolli rek mooy tey ji moom ayant droit la ndax euh, dafa doon bàyyi liggéeyam yëpp di dox yëpp même certificat d'hérédité yëpp moom moo ko génne moo ko dox toog na fi un di def di lijjanti yooyu pour rek kër gi. ñu mu ñu génn kër gi libre ku ci nekk li nga war a am nga am ko mais man dama continuer di fay luwaas sama dal daanu ñoom ñoo may dundal ñoo yor sama lépp ñu benn famille moo fi des ak euh, ki gérer kër gi ñoom ñooy nekk fii kër gi la ak kër euh, rëbës ñoo yor lépp man sama doom yi yoruñu dara dañ leen léser kon boog tey jii man tam lu ma bëgg a tey moom dafay protéger vie humaine ñoom na xaalis boo leen soxal ñun vie humaine la ñu wax su nit ñi génnee ñu raser kër gi loolu la ñu bëgg mais yàgg nañu tamit di daw ci maire bi en tant que citoyen ma juddoo fi màggee fi jur fi sama njaboot kon tey jii su ma soxlaa dara ci me ci biir Médina ma ko ñàkk mën a am mais sama doom daf ci daw ba sonn pour ñu am rek euh, certificat de démolition. bërki démb lañ ko jox kon boog tey. ñun tamit bëgguñu dara comme suñu am nañu lépp arrêté am na am nañu ak léegi démolition moo des ki koy démolir dañ koy woo mu ñëw démolir ko ñi fi nekk nag nañ ñu dimbali ñoom tam nu ñuy génnee kër gi parce que mënuñu ko daaneel ci seen kaw waaw loolu laa doon wax wasalaam. yow yow nga woon mën nga wane kayit yi comme ça ñu gis ko à part. c'était en 2018.